الحديث العزيز مالا الحديث المشهور مالا من وما به انفرب راوي مطلقا فذاك بالغريب قد تحققا وما حديث بوخان به تيما انفرد ويتونا راوي ابراوي اجي صلو مطلقا لما ندون فذاك لوليري بالغريب تيتو غريب قد تحققا دقنا من حديث بوخان benn raaw yi da caa wéet kenn dong moo ko solo mutlaxaa nag mooy moo xam dafa wéete ci matnul xadis ba wala ci sanad ba ci la wéete nga xam ne moom dong moom moo ko e, solo noonu kenn fekk siwu ko ca wala boog jëmmi xadis bi moom dong moo ko solo kenn fekk siwu ko ca xadis boobu la ñuy tuddee alxarib mooy xadis bu tumuranke su ko defee loolu misaal mi mooy lu mel ne xadisat abdullah ibnu dinar bi mu jëlee ci abdullah ibnu amar wax ne dégg naa ci ibnu amar mooy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na jaay kilifteef wala maye ko te mooy ku goreel ab jaamam mu ne kilifteef ga moo ko moom mu koy jaay wala mu di ko maye mu ne loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo tere xadis boobu abdullah ibnu dinar dong moo ko nettali moom dong kon da caa wéete kenn fekk siw ko ca لولو حديث لا بو خاني موم دونغ موكو صلو ولا صح لين دي ماتنا بي تي لا كي صلو حديث بي موم داف تا ويت لين دي ماتنا بي ماتنا حديث بي لو ملني حديث بي يونس صلو دي فراتالي ا مورم كور حديث بو بو ديمي تي ا روايه امام مالك waxe farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam min tamrin أو شاعر من شاعر على كل حر أو عبد ذاكرنا ومسعى من المسلمين التي maam Malick ci riwaayaam boobu ziyaada la boo xam ne ci maam Malick rek ko fekk ci ñeneen ñi solo solo xadis bi ci riwaaya maam Malick doon la ne ñëwee kon kooku ziyaada la moom itam ci lenn ci yaxu xadis bi kooku it xarib lañ koy tudde su ko defee nag xadis xarib nag moom ñu bëree ci borom xam moom dañ koy maanaam eh, sikkal loola xarib du tumaranke man day wax ne xaru mi maara waaxu mi al mu ne xam-xam daal li ci gëm mooy maanaam lu nit ñu bëri solo waaye nag li ci yées mooy boo xam ne moom dafa tumaranke nga xam ne kenn da caa wéet ne imaam ahmad ibn hanbal la raktu wala xaraayiba fa innaha manaakir wa amatu wa doxafa mu ne bu dee bind xadisul xarib xarib ndax xadis yu ñu xamul la te it ay xadis daxif lañ yëpp maa yu daxif lañ noonu la ko waxee moom donte nag maanaam daxif gi daf ci ëpp moo ci gën a not moom ndax xadisul xaraib yi moom yu ci ëpp moom dañoo daxif waaye nag du yëpp ndax boo demee ci saxiix Buxaari ak Muslim ñu ngi fekk xadis yoo xam ne maanaam xadis yu wér lañ te xadis yu xarib lañ hmm. boo demee ci jaami bu Tirmisi moom tam dañ ci fekk xadis yoo xam ne xadis xasan lañ te xadis al ahadisul xaraayib ci lañ bokk kon daal xadis yi daan bi moom moo ci gën a not waaye nekkul ni yëpp yëpp maanaam xadis xarib boo gis rek xadis daan bi la déedéet hmm, am na ci yu wér loolu dina ko leeral ci kanam incha allah ama bihi isnaani qad tafarrada kada salaasatun xasiisun wujida mu ne mama boo xam ne nag al ni ñaar xat tafaradaa wéetoo nañ bi ci moom kada ni ki noonu salaasatun ñett wujida fekkeef na ko xasiis muy xadis xasiis kon su ko defee dafa mel ne alxarib la waxoon ak alxasiis ak almashhur alxarib la njëkk a taarif léegi mu ñëw ci alxasiis mooy mu ne xadis xasiis nag boo ko bëggee xam mooy xadis boo xam ne ñaar dañ caa wéetoo wala ñett xadis boo xam ne daal ñaar rek moo ko solo ñoo ko solo wala ñett kese xadis boobu dañuy tuddee xadis xarib moom lañuy ñuy tuddee xadis xasis bu defee xasis mën naa jóge ci xasa yaxisu bil kasri ay xal la maanaam néew na daal ndax ñi ko indi ñi ko solo bëriwul wala boog xasa yaxisu bil fatxi maanaam ci ne maanaam dëgër na xawiyun su dëgër la ndax lan ndax dafa dikkaat ci beneen yoon ñaar yëpp mën na ko firi xadis boobu mën naa jóge ci ñaar yooyu yëpp su ko defee foofu xadis biñ ci misaale mooy lu mel ne xadis nekk ci saxiixayni yi muy laa yu'minu ahadukum hattaa akuuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan naasi ajma'iin mu ne kenn ci yéen du am imaan loolu ne damaa dem ba mu gëm naa sopp daa dem ba gën maa bëgg ci ay doomam ki way juróom ak nit ñëpp xadis boobu xadis la boo xam ne Qataada ak Abdul Aziz ibnu Suhayb bu ñoom ñaar dong ñoo ko solo ci Anas kon xadis xariba ngi noonu ñaar yooyu ñaar dañ caa wéetoo Abdul Aziz ibnu moom ñaar ñoo ko solowaat ci moom muy Ismaayil ibnu Alayya ak Abdul ñu ñaar dong ñoo ko solowaat ci moom ñaar ñooñu dong ñoo ko solowaat ci Abdul ñaar ñooñu nag ku ci nekk mbooloo solo na ko ci yow waaye xadis boobu kon da ngay gis ne kon moom itam xadis xasis la ndax ñaar dañ caa wéet su ko defee fii nag boo xoolee bi muy maanaam taarif xadis xasis dafa wax ne mooy boo xam ne ñaar dañ caa wéete wala ñett loolu mooy ma waxee li ëpp ci borom xam ne donte ku mel ne imaam Asuyuti moom day wax ne maanaam boo xam ne ñett ñoo ca wéet boobu masuur lañ koy tudde waaye tuddatul xasis moom wax na su ko defee kon loolu mooy xadis xasis mooy boo xam ne ñaar dañaa maanaam ñaari ñaar ñaari waat rek ñoo wéeti ñaari raaw yi ñoo wéeti ci maanaam xadis bi ñoom ñaar dong ñoo ko solo wa xayru za ku yi ma wax nag ku dul xarib ak xasis nag al mashhur moom lañu tudde mashhur kon mashhur mooy xadis boo xam ne moom maanaam nekkul ne kenn moo ca wéete ndax loolu la tuddee woon xarib nekkul ne ñaar moo ca wéete wala ñett ndax loolu la tuddee woon xasis waaye maanaam lu ëpp loolu moo ci wéete ñett jëm kaw kon kon bépp xadis boo xam ne ñett jëm kaw ñoo ca wéete dañuy tudd mashhur ci wax yenn ci borom xam ne donte bi moom day wax ne xadis boo xam ne ñeent dañ caa wéete jëm kaw dañuy tudd mashhur waaye bu dee ñett rek kooku ci xadis day dugg hmm. Hmm. kullun képp ci ñoom nag yattadi dana leer fii ci moom ab daif daif wakkataan yi moom ëllëg la xam yosu fi dana wér su ko defee nee na nag كيف جاء هذا جاي ما تدونك مي غريب أكانتيس أكمشور يبونك كأنا كنت نك أمنا ضعيف أمنا صحيح بل كي أمنا حسن صحيح كن هذا جاي أمنا جي غريب ولا من أنت فاكر بعدنا ضعيف لا أكبرنا صحيح لا ضع ضعيف إذا أني جاب تنين قاهون أكبرنا حسن لا هذا جيت أمنا لولو مشهور أمنا لولو أمنا جي أمنا ضعيف لا أمتي يا أمنا صحيح لا أمتي يا أمنا حسن لا kon képp ci ñoom rek nee na am na ma daif ak saxi su ko defee foofu nag ñu bi def fi ab leeral tuuti mooy xadis mashhur mën naa nekk mashhur dégg nga ci borom xam-xam yëpp nga xam ne bu ñu ko waxee borom xam yëpp xadis mashhur lañ koy tuddee ci fuqaha yeeg muhaddisoon ñëpp léeg mu nekk koo xam ne mashhur la ci fuqaha yi te du nekk mashhur ci muhaddisoon yi loolu it ba tey danañ am ci xadis mashhur hmm. ثم من المشهور ما تواتر وهو ما يروي جمن زراء كذب معرفا كمسح القف رفع اليدين من للخلف ثم تبنا من المشهور نكنا مشهور أما مشهور ما حديث بوخان تواتر تختلونا حديث المتواتر من المشهور كن أما حديث يوحان متواتر المشهور هو نعم حديث بوخان نين نين كو سوى جمكاو لا ينجي بوخان سامو متواتر ليدون mutawaatir lay doon xadis boo xam ne moom ñi ko solo dañoo bëri te jéggi dayo mutawaatir lay leeral mooy lan mu ne uhu moom ma mooy boo mooy boo xam ne yaru yi ci dana ko solo jamxun mbooloo xudira boo xam ne wattandiko foofu na leen kadibum wattandiko foofu na kadibum seeni wax lu dëgg orfan ci aada boo bëggee xam luy ma tawaaturu mooy boo xam ne ñi ko solo mbooloo lañ moo xam ne ñoom ñëpp ñu bokk dëppoondoo ci wax lu dëgg loolu moom mënut a am ci aada jomb na yëpp mënuñoo dëppoonoo ci wax lu dëgg ndax dañuy mbooloo moo xam ne jomb na ñu dëppoonoo ci wax lu dëgg ci aada kon loolu ñuy tuddee maanaam mu mutawaatir euh, kon mashhur am na ci xadis yoo xam ne boo demee da nga ci fekk muy xadis yoo xam ne al xadisul mutawaatir lañ xadis yoo xam ne moom mbooloo moo ko solo dañoo dañuy mbooloo mu jéggi dayoo moo xam ne ñoom ñëpp ñu dëppoo ci wax lu dëgg moom maanaam jomb na nga laaj ko ci misaal mu ne mu jox la misaal ne ka masul xu fi lu mel ne xadisu na masul xu fay ci kaw ñaari seng xadis boobu wax nañ ne lu mat juróom-ñaar fukki saxaaba nettali nañ ne ko nettali nañ ko ne yéen saxaaba def na ko te juróom-ñaar fukki saxaaba yooyu sax alxasratu mubashara bil janna muy fukki yi yéen saxaaba dund da ngeen tàbbi àjjana ci lañ bokk ñu nettali xadis boobu kon xadis boobu moo xam nga xadisul mutawaatir la hmm. ولمن إبن المنذر دعنا وعنا جلنا جي الحسن البصري من حديث بابو ما شو الخفيني ما شو ما شو النبي صلى الله عليه وسلم الخفيني أنا لما جلنا نعرف كشهادي نحن نقول كان حديث بابو مم حديث متواتر لي تبدو ولا من رفع اليدين من رفع اليدين يكتب نعرف له يد هذه من نعرف نعرف له يد في نعرف له ومن حديث رفع اليدين أنا أنا أنا الصلاة yëkkati ñaar loxo ci booy tàmbali julli gi xadis boobu it xadis la boo xam ne moom itam nee ñàkk na ak wuute ndax moom itam xadisul mutawaatir la ndax wax nañ ne li ko solo ci ay saxaaba maanaam mat nañ juróom ñaar juróom fukki saxaaba yoo xam ne solo nañ xadis boobu nga xadis boobu it al xadisul mutawaatir la mu ne wax rawa solo na xadisahu xadisam ba man ba حديث من كذب علي متحمدا فليتبوه مقعده من النار من سلو نكو اكثر لو اوب من 60 جيوم بن فكو ممن تي نيو خن صاحبا عندنا يونس صلى الله عليه وسلم حديث من كذب علي حديث لا بو خن لو اوب جيوم جيوم بن فكو سي اي صحابي سلو ناي حديث بو بال صاحي امنا ني ني مانام نيكو سلو مان نان نيات تيمين صحابي حديث بو ويت الحديث المتواتر su ko defee nag alxadis almutawatira nag al ahadis almutawatira wax nañ ne maanaam imam Suyuti moom taalif na ci wax nañ ne sax kenn jiitu ko ci moo ci njëkk a taalif téere boo xam ne al ashar almutanasira fi la ahadis almutawatira la ko tudde xadis téere boobu wax nañ ne maanaam indi na ci lu mat téeméeri xadis yoo xam ne yëpp al ahadis almutawatira lañ kon sunu bind mën nañ ko yamani foofu hakaza wa sallallahu wa sallama ala sayidina mawlana muhammad ibn abdillahi wa xayri xalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimi ahmad ibn muhammad ibn habibillah wa mati wa sallama tasliman